Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Mahamadou Diop ak Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir ak Serigne Cheikh Na Mbacke moom Serigne Cheikh Tane di xarit di sëtu borom Sàmm ak Serigne Cheikh Bara Mbacke Abdoul ak mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañ xam naa boo limee rek da ngay fàtte ci. comité organisation bi itam tànn nañ ci doon juróomi commission ñu teew teewaale ñu ci des ndax xataayu saa kon euh, ginnaaw boo xam ne Serigne Ousmane wax na bu ñu ko tuddee tudd Serigne Abdou Lahad tudd Serigne Abou Mbacké ci des ñëpp ak commune bu Touba nga xam ne Abdou Lahad xam leen di xew. moo tax mënta ñëw sëriñ Sidi Mbacke mu sëriñ Abdoul Aziz ñu topp ci moom ñëw na teewal ko ak alhaji Ndiaye ak mboolem ñu ci gis ñu tàmbalee rek mooy ñaanal suñu mag yu baax ji ñàkk tey di sëriñ Saliou Mbacke Cheikh Abdoul Ahad doonoon jàmbaar lool ci liggéey sëriñ Touba ginnaaw bu ko Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad ku ko xam ne xam ne génn ca way juróom way jikko jàmbaar gi ak fit yi ak fulla ji te loolu jékkul ba léegi mu def ko kon ñu ngi ñaan suñu borom ko leer leeram te taas ñu ci barke bi jaale itam gouverneur way juróom ñu ñàkk moom itam yàlla daf ñu yéeg yi ñëwoon ko suñu borom waaye xataay bi tax mu mujjoon fu ñu ne waaye comme yàlla def na ñu agsi ba ci moom ñu ngi ko koy jaaree di ñaan moom itam suñu borom jéggal ko te yërëm ko bis bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuuba la mooy màggalu Tuuba di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bi lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñu Serigne Touba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bii yàlla def nag ci ñaanam ga ak liggéey bu tëdd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak bay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe yëpp nag seenu xeeb tax màggal gi ak fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te li ëpp solo te li ko tax a jóg di ci yaakaar ëllëg suñu digg ak yàlla ci yaakaar ëllëg suñu digg ak Sëñ ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma la réew waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna ma ne soo ko caa muy dugal lu bëree bëri itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew mépp lay jëriñ kon li ngeen tudd tey relancement économique màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag yi bu ñu amee lu bëgg jaay dañ koy xaare màggal bi ngir barkeelu gis kon nag yàlla def Sëriñ Mouhamadou Mountakha duñ ci sañe seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taari bi itam du laaj ndigal day toog ba jox ko kon ñun li ñu war mooy toog fi xaar ndigalu sëriñ bu sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyal liggéeyu mag liggéeyu mag bi ngeen ko daa defe ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiite woon ni mu ko baaxoo defee ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko lañ ko waroon a defe séntu ci it lañ ci daa séntu te ji itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifaam yi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxawal ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di rafetlu jataay bi itam ñu mu doxee. di ñaan itam ñu àgg ca màgg ak jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci te suñu xel war ca dal bu baax a baax war a dal xel yi mooy eh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci eh, pëstéef ak ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngir xam ne sëriñ bi kat lépp loo ko sëf te def ko pëstéef ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñu ngi ñaan ñu te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mii nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gii bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir teg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ko ñu bokk réew mi nekk ci biir àdduna yi seq ko waa àdduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh Maodo Moutakha di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daa ko def te xam ne mën naa jur fitne wala ay jàngoor di ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko. mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def ren ji yàlla def na ngir xam fi àdduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi visio nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñi nekk Arabie Saoudite ñi nekk Iran ñi nekk euh, Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence noonu lañ ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk di ko dund ba mel ne ni nga gi itam xam nañ fi jamono toll waaye nag waruñ ca àgg itam te dañ ca daa jariñoo di ndax yaar yëpp mën na mënees na ko sàmmante kon xam ku ne xam ne na ko kilifa bu njëkk yaa daa defee rek ca tànk yooyu jaar moom bi wéradi gi xewee la Serigne Touba waxoon ca peste ba la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla mi ko fa wàcce waxtu bu ko jaaxle mu jeex kon képp ku gëm yàlla yëpp dangaa war a tënku ci loolu xam ne suñu borom moo ko doxale noonu ndax moom mi ko fa wàcce moo xam ne tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax la ko ca war itam la ci jëkk mooy ñaan loolu itam def na ko waxtu wu nekk mag di ko santaane yëpp ndax ak euh, ab jullit addu'a silaaxul mumin ginnaaw ba loolu jàll itam li nga xam ne adduna da ko indi te lislaam santaane ko ndax ne ko sëriñ bi waxee rek walaa tulquu bi aydiikum ilaa tahlukati loolu lislaam moo ko santaane kon ab jullitu xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu dëppook sariya mu wër ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diggam te du yàq mbirum àdduna waaye nag suñ digg ak suñ borom moom mooy jiitu ndax loolu tax yàlla wàcc ñu fi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu ko adduna bi suñ borom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diine indi kilifa adduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko boo adduna ñëpp maase ci loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe loola yëmu ca ndax yëmu ci waxe kese waaye da ko booleeg ay jëf jëf ji mooy ba wéer di gi tàmbale lay yëkkati lam ci man ngir xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen njiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew mi ngir xam ne la Cheikh Mahamadou Fadi Mbacké daa wax ne domp sax ci sot la bokk loolu ci jublu ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñëpp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu borom jële ko fi yëmu ci itam tàmbalee ko ci Touba mboolem lu ko waroon ci ay ci dëkk bi li ko wër yëpp bu yëkkati alali boppam tasaare ko séddale sant ko taalibe Sëriñ Touba yi ak daayira yépp ak seex si ñëpp marché ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbalee ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi kon sëriñ ko xam responsabilité lépp lu ko waroon ci wér gis ngeen itam ba nëgëni li lépp itam gis ngeen jumaa ba nëgëni li mu santaane bu ñu julli nañu soriyante ak mboolem jàkk yi nga xam aju na ci moom kon. moom pour que ëpp responsabilité ci réew mi néew fi kon bu sañoon taalibe bi ak jullit yi ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér bu sañoon ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér moo jàmm moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci àdduna si kon Cheikh Mawdo Mountakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo xam ne mën naa andi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamee noonu yëmu ci it ndax euh, dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ci mu jëf ñëpp gis ndax ku ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque yi di ko takk lépp li mu ci jur mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexe ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sant ñëpp képp koo xam ne mën ngaa jël masque yi di ko takk. ñi xam ne ndax xëy ne am na ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mi ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkiteel bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér topp leen kon loolu itam li nga xam ne euh, médecins yi ak docteurs yi. santaan nañ ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattaliku ci ba ci biir loolu sax waa daayira Muqaddamatul Xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen ne mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa seer ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas yéene tërale ko noo xam ne ñépp danañ siyaare te danañ sàmmante li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññe yi nga xam ne ndax màggal gi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd waaye rek ñu ngi rafet njort rek ci ne bu màggal gi jàllee rek suñ borom mën na fee doxe lépp tàggoo fi dem kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaandeem di sant nag. président makki Sall ci cant gi ndigalu bu Mouhamadou Mountakha démb la waxaat ne naa ko jot li cant cant gi li ko waral mooy bi màggal Tuubaa gi jàllee daaw ba ba gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi damay yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi di ñu yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne déwéwaat ba ca des mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci biir na mbeddi Tuubaa yi bari na ci loxoom l'état bi defoon na ci fukki milliards waaye Tuubaa dafa rëy la koy defal assainissement dana mat téeméeri milliards wala mu ëpp kon da ngay tàmbalee fenn rek dem sëriñ bi. yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yitte waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yitte yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doole suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji rek moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am li ñuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi naa li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def étude xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mu neex mën fee ñëw ak ndox mi bañ a màggati loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy cabinet bañ jox liggéey bi ci weer septembre bi daa tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pëstéef def ci taxawaay kon sëriñ bi ko ci sant ko ci ba ca des it mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa sensé it la jox ministère bi ko war ndigal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël bis ak yoon 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bi jëm ci fosse yi ñu doon wax ca fan yee weesu waaye bii ci wàllu taw bi la yàlla def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yeexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sépp la loolu itam ñu nongul leen waaye incha allah bu màggal gi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jublu ngir àggali liggéey boobu. te loolu itam bu àggee daa doon loo xam daa doon ndimbal loolu nag bokkut ak tëli yeeg yeneen yi ci des ak làmp yi nga xam ne senegal gépp loo ko def waaye beral na ci Touba wóorul ñaari milliards loolu itam sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko jigéen ndox mi itam def na ci ak ñaar ak téeméeri million loolu jéego bu rëy leer kon sëriñ bi sant bu baax di ko gërëm ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne du sant ku ma deful dara. kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis naa mu manqué ci dëkk bi ndajaam xam na ne bu waxee moom mu dégg ko te lu mu ca mën dana ko jëlal moo tax lu mu ci yëg xam ne manqué la wala war na ko def sëriñ bi dana koo waxal ko bëgg ko waxee itam fa sansa la mu ca mën dana ko jëlal ndax man ñi ne ci diggante bi xam naa ci dara kon ñu ngi sant ñëpp diggante ñëpp di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la ñu àgg ca jàmm génn jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak daloo xel ànd ceeg rafet jort ngir xam ne sëñ Tuubaa mbiram eh, suñ borom feggal ne ko ci aafatu ak kaddu kon suñu xel war na ci dal yaqin sax la ci war a am wasalaamaaleykum wa barakatu